du jamais vu les gars quatorze cartons ci benn match ban match laa woon lii recordu Premier League la hee match bu metti bi ni mel moom salaam gars yi béggee naa leen nuyu ko ci nekk seen trop seen santé waru leen bett de carton bi am na Sénégalais bu ci am takal la muy Nicolas Jackson moom moom bu amee carton jaune moom bu leen bett kooku moom vrai sadique la quoi vraiment mu doon match boo xam ne 14 carton jaune la am mu ngi noonu Chelsea nag daanaka am na lu tolloog 1 2 3 4 5 6 7 8 Bournemouth am une deux trois quatre cinq six quatorze quatorze woon ci benn match Premier League te match bi 1-0 la mujjee non mais lii mooy définition Premier League dëgg dëgg dëgg dëgg mais kenn du Sancho ibbi tey jàng tey premier match premier homme du match jàppale Chelsea def passe décisive permettre Chelsea gagner son match contre kooku di Bournemouth match bu metti fin temps la kooku di Nkunku dugal à la quatre-vingt-sixième minute Sancho a commencé en beauté. maa ngi xaar la suite nu mbiri nar a demee en tout cas sans avec Manchester United du dox mais bu génnee Manchester United day mel ni maanaam Ronaldinho buñ sol ci ay tànkam ah tamit jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous. gars yi Lamine Camara en ce moment il le source euh, du public monégasque ah oh là là Lamine Camara gis ngeen li muy fubal ces doon nouveau joueur. mais di def ay positif ak i but salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen trop seen sant non mais jamono ji Lamine Camara ni ko waa Monaco bëggee joueurs sax dañ ko bëggal seen bopp résultat match yi nga xam ne jot naa am tey foofee ca Liga waaye it Italie match yi fa gën a fës mu ngi noonee ba ci ah, mën naa ni Angleterre dinañ ci ñëw mais ah, Monaco ah, bu ñoom Lamine Camara tey jii nag ñoom ñi ñoo dóor Auxerre par la marque de 3 buts à 0 son international sénégalais boobee di Lamine Camara nag délivrer une passe décisive comme d'habitude il est en forme il se contre mu doon joueur boo xam ne nii il n'est pas complexé il est en train de quelque chose boo xam ne nous sommes fiers pour lui kookee di Lamine Camara en tant que sénégalais Monaco dóor na Olympique de Marseille sama club oh là kenn du moom mi ko kii di OGC Nice par la marque de 2 mu ngi noonu doon match boo xam ne dominé nañ ko gagné ko alhamdulilah Paris Saint-Germain ca euh, wet ga moom it dóor na 3 buts à mu doon match boo xam ne aussi on a ràññee kookee ñaan ko Ousmane dembale xam ne moom it tey double la def contre kookee di Brest ñu dóor leen 3 buts à bu ñoom mën naa ni euh, Abdoulaye Niakhate Ndiaye ak kookee ñaan ko Abdallah Sima mu ngi noonu waaye jógee foofee dem foole euh, ca Italie Milan trois a 4 bi à moom la dóor Venise mu ngi noonu ngeen xamee ko noonu waaye it yamaatuñ foofu Angleterre kooku di Chelsea nag moomee nag mën naa ni 2 bi à moom la dóor Bournemouth kooku di Sancho ibbi tey jàng tey première match. premier homme du match dugg def euh, match bu extraordinaire permettre kooki di Chelsea mu gagné son son match Nkunku moo dugal l'unique but de Chelsea Nicolas Jackson titulaire la mais dafa mujjee ak génn suñu côté international sénégalais boobu di Ismail Jakobs Seck nag Galatasaray noonu nag ñoom 5 lañu dóor moomee nag def na tey premier match am ak Galatasaray mais public bi accueillir naan ko dalal naan ko teg ko ci ak waaye kooki di Ismail Jakobs Seck bonne chance à lui bonne continuation mu ngi noonu gars yi jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yenn vidéo merci gars yi pour voter ma c'est simple gis ngeen sama vidéo YouTube bi nii comme bi ngeen di seetaan nii bu ngeen ci duggee. comme ni ngay seetaanee sama vidéo YouTube bi nii plus bi ngay bës fi ñu bind plus noonu mooy description boo ko bësee mu indi la ab lien mooy voici euh, nga bës lien bi mooy lu li ngay bës www pulse boo ko bësee lien boobu boo ko bësee da lay yóbbu directement ci site bi moom ngeen gis noonu soit da lay yóbbu directement si wala mu laaj la Safari wala Google nga bës Safari wala Google boo ci am nga bës ko mu indi la ci site bi nii gis nga ngay wër sama tur di wër gis nga sama tur moo noonu ma cliqué noonu bouton bu weex bi ngay bës gis nga mu def bleu gis nga mu def bleu noonu après nga bës voté foofu noonu bësee voté muy indil la calcul 7 plus 3 10 wala lu mu la indil baax na calcul nga nga dugg résultat après nga bës voté. ah waa mais gars yi Lamine Yamal nee mu ngi espérer gis Nico Williams saison bi di ñëw nee na xamagul nag mais am na ci yéene waaye nee na bëgg na à chaque fois di gis kooku ñu naan ko. Euh, Nico Williams foofee ca saa bëgg na chaque week-end di fubalandoo kookee di Nico Williams nee na loolu mooy bëggam bëgg-bëggam ak yéeneem te am na yaakaar am na ci mu ngi espérer bokk mu ngi koy yaakaar nee na xamagul nag lan mooy am. waaye leneen lam ca teg kooke di Lamine Yamal nee na saison bii di ñëw ñu ngi xaar bu dee day ñëw ou pas mais am xamaguñu mais daal am na yaakaar ñëw foofu ma leen xaar ci commentaire yi est-ce que yéen baax saa yéen moment yi ngeen toll ni ak Lamine Yamal ngeen ak Olmo pare ngeen pour jël Nico Williams wala jaru ko ou pas ngeen bindal mu ko ñu waxtaanee ko mu ngi noonee gars Abe Sadio maa ngi sa xaalis waaw tuuti tuuti rek. on gère mooy loolu. waaw waaw influenceur. waaw di góorgóorlu rek. waaw amin amin ana Lamine ba may ñëw maa ngi koy maa ngi koy def siñ quoi mooy loolu. saa yoo dara waaw am problème incha allah après après naa si déggoon moom. ça va bon bon mooy de Allah je pense que c'est venu cette fois-ci. incha allah incha allah je vais te donner eh, je pense que. Eh. ay Nacho Saayo. ah Saayo. ah Saayo. Saayo yow photo yi ma lay photo doo gis. yi ma lay photo. da koo gis lu rafet sax parce que pour ay yeneen ay yu bëri Moussa ak gars yi da koo gis. waaw ah, gisoo depuis chaque jour maa ngi faral ko ay garaaw c'est-à-dire am na yu dàqee yi sax ah. après mu koy jox damay def ba ma faral nga jox si ah. mooy envoyé après ma envoyé la. ok merci beaucoup léeg-léeg. monsieur directeur. mais directeur.